nekk naa nekk ndax nekk bi ma nekk nekk nekkin jigéen. top c'est parti pour votre émission nekkinu jigéen à la présentation Mbène Diop waaw xale caprice futur jongoma moom laa leen di tegal Drianké <laughs> lu ngeen ko woowee baax na nuyoo bàngoog mbokki internet Sénégal TV di am mbégte di àndaat ak yéen ci seen émission nu jigéen comme ni ma ko waxee. tay ñu fasiyene waxtane violence faite aux femmes moy manam goor ñi nga xamanteni dañuy méttital seen i jabar di door di ñopaté nu ngeen ko tuddé té rek nonu baax na mais dinañ ci ñëw ci kanam ci lool nak wétuma ci benn yoon dafa am ñuma ci andal muy samay chroniqueur comme ni ngeen ko xamé sa su ne maam Fatou am sama ndey jor dalal ak jamm wa ben euh, maa ngi lay nuyu di nuyu sama càmmin yi Samb di kontaan tamit di teew saa su ne suñu émission bi nga xam ne moom mooy nekk jigéen ci loolu aussi am nañ ci monsieur Sambu monsieur Sambu ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay ziar di la wax tur jong ma kontaan naa ci nuyu bi ni ko duggee ak xale bi nga xam ne kooba kabasa kabasa <laughs> ne di kontaan lool euh, franchement parler seen euh, seen plateau bi ala doomu awma ala doomu bi. comme ni ma leen ko waxee woon tey dañ fas yéene waxtaane góor ñi nga xamante ni dañuy xor ñoo na seen jabar yi maanaam di dóor di saaga te loolu moom taamuwuñ ko ci góor en ah, maam Fatou. ah waaw waaw waaw loolu laa sawar a wax parce que góor tamit. kenn taamoo ci loolu li nga wax góor dafa war dafa dafa war a comprendre jigéen góor warul dóor jigéen góor góor ci boppam moo war a xam place am xam ne moom mooy góor góor góor ak jigéen tolloo ñu doole góor force am waru ko wan jigéen parce que góor dooleem xajul si jigéen góor yi dañoo war a yërëm jigéen ñi góor moom pla du place am du muy taxaw di dóor jigéen góor bu normal moom du dóor jigéen góor bu normal bu dóor jigéen sàmm waaw Mbène exactement damay relater rek bi sama jigéen wax. Mhm. di wax suñu mbokk internet Sénégal Sénégal TV. ne leen man j'ai mes diplômes en baax jongologie. góor dafa war a jonge ana ah, dóor ana jigéen ak dóor. jigéen ak dóor. ana jigéen ak dóor. yow yaramu jigéen macha allah. Mhm. ak jigéen nu mu mel. ak importance bu jigéen am ci société nga yëkkat di ko dóor. Mhm. kooku ñaaw na trop. est-ce que gisoo ne parfois ñooy def liñ leen di dooxee. mais wax ana wax. Ben am affaire nga may ma tuuti rek ben 2 minutes. parce que bëgguma tamit monopoliser la parole. daf ma ne jigéen. su nekkoon am yenn xel yenn xelu grandeur. kon kenn du ko muur muy sëy. yokal baat bi tuuti. dañ ne jigen su am dama dama añagul nak suñu mbokk internet yi moo tax ma wax nak dama ne jigen su nekkoon amna xel deug ma sha allah am ngeen xel. mais xel bu may wax. jigen su ko amone deug deug deug kon duñ ko muur mu sëy. ñu ngi ko muur mu sëy mm-hmm. parce que imagine nga nekk ak sa kër yaay mm-hmm. sa kër baay ñu lay jox lekk di la jox naan ba nga màgg benn waaye ñu la donget muur la yóbbu la mm-hmm. nga na dem foofu sëy mun a jigéen tey jii nii loolu loolu xam nga jigéen dafa mel ni xale bu ndaw nga xale bu ndaw soo jégee benn kii tàngal waa leneen day nga ko di ko neexal jigéen loolu la laaj neexal di wax ak moom dal lu mu coow coow coow xelal lu muy jooy jooy jooy jooy soo jëlee tàngal na ko am. day noppi. mu fàtte jigéen loolu la rek. am na solo mais Mame Fatou ki nga xamante ni da nga romb ñëpp takk ko ah comme bi l'habitude de le dire. Mhm. choix yi bari na mais da nga ko taamu mbëggeel lañu wax soo demee bay wëlbatiku di ko dóor y problème lan la ko jigéen ki def bañ dóor ko est-ce que bi nekkul ci ñun benn instant. waaw euh, man toujours dama naan rek lu jigéen def def def def tort dóor moom amul place ci sëy dóor amul place lépp mu ngi fi façon bu nekk mën nañ ko régler mhm. dañ koy régler avec diplomatie mais dóor moom dóor moom bokkul si sëy soxna mbenn ak lu ko jigéen ko mën a def def boo demee ba mën a too ko supporter mhm. jikkoom neexatu la xam nga ne bu fi boo leen boo leen nekkee chaque jour ay dóor dina am wala dara ña bàyyi ko mu dem yoonam moo gën dóor yi parfois ñoo lay wax la nga xamante ni da ngay sës de da ngay sës ji góor yàlla dëgg du dóore laa la wax amul mhm. sës pour yow daal dafa war a am maîtrise amul sës góor dafa war a am ba ci bu ñuy poñe la sax nga bàyyi bu la poñee nga bàyyi ko xam ne jigéen la boo ko laalee rey ko yow sa doole dafa xaj ci jigéen mhm. moo tax góor dafa war chaque jour di mét boo mënul maîtriser wu yaa ngi ci biir kër gi coow am na mhm. nga xalaat ne boo fi toogee di nga def erreur nga génn nga dem ba sa xol feex nga dellu am na solo maîtrise bu la mettee nga génn dem ba sa xol feex nga ñëwaat mais sàmm ba léegi dañuy wax ci violence parce que ñu ngi wax dóor mais violence verbale aussi dafa am manam di wax nit ki lu nga xamante ni da koy metti est-ce que gisoo ni sax parfois dóor moo tane boobu booboo gën a garaaw mhm. ci nan boobu gor dëgg-dëgg nga jël benn baat bu ñëw jam ko ko mhm. kooku mooy rey nga ko mhm. euh, barki démb Ousmane di ko wax di ko naan jàpp ne su la bëggee rey dal naan lan lu mu la waxate lay wax lu lu lu muy di daal waaw yow mënoo dara xamul dara pour sous-estimer la lolo gëna graw mhm. baat baat bu ñaw man ana ana gor nit ki tay nga xalaat sa moroomu gor jël baat bu gëna ñaw jam ko ko kooku rey nga la tué mhm. gis nga nit ci ak num mënta dé ak num la mëna wax num mhm. ko tek sur table ñu waxtaan trouver une solution parce que waxtaan lepp kon euh, waxtaan la waxtaan dafa am solo ci couple c'est-à-dire que deug dégg le vrai sens du deug deug nit ki dafa war am deug deug fu la waxe xamne fi la waxe la waxe mhm. parce que tamit euh, kéro ki mo ngi expliquer ne couple yu bari bari bari ñak dégg dégg mo tax ñu tass mhm. ñak dégg dégg mo wara violence yoyu mhm. mais ni so amé dégg dégg dégg dégg dégg non gëm na yok sa soxna ko xam ya ko tanal sa bop bëggal ko sa bop non sey bop ma sha Allah way mbél gisoo ni yeen say insupportable bi ni insupportable moy pousser à ce que ku goor ki def ko la nga xamantani sax bëgg ko won def maanaam su ma waxee foofu manque d'éducation day taxaw. manque ci ku jigéen ki. ay façon de faire mooy pousser si ku góor ki ah def ko loolu noonu. waaw loolu dëgg la. Mm-hmm. ay loolu dëgg am na jigéen yoo xam ne ngeen jéggal ma nag jigéen yoo xaw a doy waar. Mm-hmm. ay kooba kabasa kabasa. kon léegi ngeen nangu dóor yi non non baa man dóor moom catégoriquement man dama ko bañ. mooy dernier voie de ko waaw mooy parce que mbaam mooy dóore ko ñu waxante dëgg. alkaat yi sax dóore sax war na ko weesu. waaw mm-hmm. vraiment nga mel ni gendarme tër tër tër ni ñu ko dépassé. wéy la dialogue da war a dialogue waxtaan. Mhm. ngeen trouver un consensus. Mhm. parce que yéen da ngeen bu nekk pour être heureux. waaw. xam nga la mais ki nga choisir. Mhm. comme ne mel nee na affaire de euh, euh, manque d' éducation. ma ne ko ki nga choisir yow ba nga koy takk xam nga ni mel. parfois dañ lay nëbb seen jikko mais bu dee mais bu bu dee di nga xool bu dee yow xam nga ni bu dee tuuti sax am nga fi aperçu tuuti. mais yaa ko bëgg. mais nag booy yéen da ngeen a jafe xam. yow yaa ko bëgg ngeen a jafe xam nag. booy yóbbu ko sa kër man man man man man c'est que problème bi mooy dóor yi mooy li Samb wax man dama ko d'accord mhm. ak lu mun a am communication am na waxtaan leen Mhm. parce que nit nit tek la ko waxal. Mhm. mu dégg la. mais boo beugé jël jigen daf ma togn daf ma def fi xaaral ma pes ko xaaral ma mhm. rëkk ko xaaral ma are ko. du jàll de fi ko fi are da ngay am problème. li li nit dang ko wax sank mu nek wax bu am solo moy nit nit kese la. mais est-ce que du nit nit kese la tamit mooy poussé ci góor gi dem ba mom tamit dootul amati maîtrise. non mais nit bu nité du door jigen du door jigen nit bu nité nit gu nité moy li ma la wax bo amul mm. maîtrise mm. loolu moy solution bi tu sors de la maison mm. nga dem ba sa xol feex nga ñew mais do tok ci kër gi di ko tamit soxna benn di def lo xamné suba mën nga ko réccu di fatali mbokki internet yi c'est en seen télévision Sénégal TV que ñu ngi seen émission nekkinu jigen tay nak ñu ciy waxtaanee violation faite aux femmes sàmb ba léegi damay ñëw ci cadre dóor bi parce que gis nañ fi ñu nga xamante ne tout le temps dañuy maltraité seen soxna mais li ñuy jël mooy tax su ma waxee mooy soit dañuy tux yamba nañ ma bal ci cadre gi mbala ñuy nan bière lan ngay wax ci lool wa tamit lool tam man ma koy ma ma ne seen mbokk jigen mhm. jigen bu dem ba xol nan katu sàngara dugg ci mom dem ba gis tukkatu yamba dugg ci mom yeen say dañuy neub seen bopp nak ah mais yo ah mais xanaa nag saa waay labatoo labat dafa bax mhm. ngeen xamante miinante maam Fatou wax na ko mais léegi dox daje mo fi bari xam ya ma gëna xam ah mais dox daje ba ci lan mag ñi ne nañ lépp ci mais man bés bu ma demee ba xam ne yow tukkatu yamba nan ko katu damay dem dem bala xam nga yombee na noonu pourquoi pas mbëggeel lañuy wax de sàmm bu leen fàtte baat boobu nekkul lu ñuy dindi dix jours au lendemain mbëggeel ba ci lan ba ci ba lor sama bopp hmm. mbëggeel wala ba toroxal sama bopp allez-y mbëggeel wala ba lor samay doom maanaam hmm. mbëggeel googu hmm. loolu mbëggeel loolu xaru la xaru la maam Fatou lu ma wax sàmm suicide la total <laughs> ah cause di laa wax sàmm laa lay posé ba léegi ñi nga xamante dañuy tàqalikoo seen sama ba mu leen ñuy maltraité seen soxna yi loo ciy wax ñi nga xam ne dañuy tàggale ko sa soxla bu dee yow xam nga ko avant. Mm-hmm. boo ci duggee yaa tooñ sa bopp boo si duggee nag gis si loolu boo jéemee jéem mënoo si dara dawal balaa daw te ba ngay ami tànk. Mm-hmm. ndax bu la rayee yaay perte de sa bakkan yaa koy ñàkk parce que ku àndul ak sagom waxuma la dóor de mais mën na la sax rey. mën mm-hmm. na la rey ba pare di seeg di soog a réaliser moom lan la def. donc mieux vaut ñun ñu jël suñuy garde daal xam bu baax lan la ñuy def parce que tamit fekk kuy tag xam ne àndul ak sagom nga dugg si moom kooku bu la rayee yaay bokk na ci cause yi aussi jalousie dañ koy constaté lu bari ah xeex yu ci bari en général loolu la. lu am solo mën a wax soxna Mbène. Mhm. loolu loolu lu si gën a bari nag ci liy indi affaire yooyu noonu problème mu sëy yi ay dóor ak yu kenn xamul ci la bokk. Mhm. mais jalousie man je me dis que ne yenn jalousie ba jar ngay dóor sa jabar wala nga koy def yenn yi pour man ñàkk nite la yenn yi du jalousie de mhm. feebar la. feebar la ñooñu dañoo war a faju sax na mel loolu feebar la. soxna jalousie ah. looy wax ci loolu. jaloux bay dóor sa sa sa jigéen boo xam ne dox rek parang parang du toog du yendal. non ku dul toog du yendal bu la do bu la doyatul boo demee ba yow nga amatoo confiance si moom ba ko mu dem. sa à dire yéen da di fàtte mbëggeel bi dans tout ça yombeewul noonu. non non non non mais attends. Mhm. gis nga mbëggeel sax boobu ngay wax. Mhm. confiance mooy base bi moo koy lal. Mhm. ki nga bëgg ta amo ci mom confiance. Mhm. da ngeen di son ndax tout temps si kii tangaas ngeen di sam bu ñewon na wax ci jalousie. dafa wax na ben affaire na xamal feebar la. Mhm. boy Mame Far yi mos nga bëgg yow. sam ñu yokk kàddu gi. man mos nga bëgg yow mos nga tombé amoureux. bu baax. mu sax xam nga isa xamul sens vrai di jalousie. ma xam jalousie man mi lay wax dama fi man ma lek fi ah deug la. mais gis nga tamit jarul ma may rey nit wala may. non non non dëgg dëgg mais tamit xam nga ku bëgg fiir. waaw ku bëgg fiir ku bëgg fiir nekkul feebar. mais nekkul feebar parce tamit nit ki soo ko bëggee. doo ko bëgg bokk ak kenn. nit ki soo ko bëggee pour yow la. da nga naan lii ça m'appartient. te li nga li nga bëgg loo xam yaa sa moomeel la nag. séddoo neexul de. Ah? waaw sa moomeel tamit. mais boo demee ba xam ne yow yaa ngi koy séddoo. waaw. Samb Samb amul lu ñu mënul bàyyi lu dul lekk ak naan ku lekkul dee ku naanul dee mais boo demee ba xam ne kii yaa ngi koy bokkante man de bu ma doon góor. du ma bokkante sama jabar. non yàlla tere bu xam ne bokkante am na si dama lay daal di libéré. musiba la moo tax dama lay libéré du ma la may. moo tax góor yi laay wax ku ciy dem ba takk soxna jamono ji mhm. na nga ko xool setat ko bu baakha baakha baakha baakha baax a baax mm-hmm. a Angleterre ak pomme de terre nuroo me bokku ñu pomme de terre on la mange Angleterre dëkk la. dëkk la nañu xool xale yu jigéen yi bu baax. te pomme du neew te nak te nag ñu baax ñu ngi baax ba léegi ni de. amna solo mais man luma gisee seen waxtaan ba léegi goor ñi dal ngeen jox tor bi. benen affaire aussi da ngay gis doxuñu rek yi dina leen doon benen benen benen affaire parce que li ngeen foog yépp yeen ah jigen ñi ngeen faral non non ah. non ñoo ngi sax ko bi dal ñe ngeen ko jox mais tamit ku ne lan wax si mhm. beneen benen affaire ah, aussi amna parfois da ngay nekk ak góor ah, sa borom keur muy liggey dem ba amatu kooku xam nga du neex deret mhm. mais ku jigen ki ni muy comporter wo ti dila tagni tagnal ak lu ne mu la koy wax parfois muy poussé góor ki mu dóor ko mbala mu def ko la nga xamante ne neexu ko lu ngeen wax ci loolu moo tax man ne la kuy dem mhm. bay takk soxla nanga nga xoolal ku baax ki ngay takk mhm. am nañu goreeti mhm. dafa bëri nag su jamono bi ah, moo tax ñun ñun les ñun jeunesse Sénégal ñoo frustré frustré fistéré waaw parce que comportement bu ñu gis suñu suñu jànq yi. ñu mhm. mel. Mhm. Mhm. góor gu nu góor gis nga nu mu demee nii. intérêt rek lan dal seen mbëggeel yëpp intérêt la. ah fii moom lu amul intérêt est-ce que. am na waaw mais te gis nga da nga ne sax mbëggeel. yow kon bu yaa yaa nga bëgg a tontu bopp da nga ne mbëggeel. déet mais ah, intérêt intérêt da nga ñun kay nañ ne nañ ne positif mais lu amul intérêt est-ce que am na ci dund bi tamit loolu na leer. lépp loo gis limite dafa baax. waaw ba tey foofu laa équilibre dafa baax. man su ma nee intérêt équilibre loo xam la nga jiital sa bëgg-bëgg de toro mais jamono ñu dafa toll ba ñun dañoo tiit Mhm. dañu tiit lu ñu gis suñu xale jigéen yi mhm. jikko yi nu muy yàqoo valeur nu mu dañee na ah sama gars yi laa leen wax de mhm. fexe leen am ni ngeen amee xaalis de soo amu xaalis lenn am na maanaam yow xëyoo gontoo ah. situation dem na ba kale kat nga bëgg ci boole aussi naqari deret aussi est ce que loolu tamit neex na nit supporté ko waaw mooy ni euh, nga wax rek xam nga góor yow nee nga ma ki ngay wax nest dafa amoon am day am c'est-à-dire dafay am laa la bëgg expliquer koo xamante ni ma dafa am dem ba amatul voilà mu naqari deret voilà mais jabaram du ko comprendre ci loolu quoi bari na këréel luy am loolu ci la quoi waaye nag kay ma la gis na mooy li euh, ma lay wax rek mooy Ousmane li mu wax wax na ko keroog mhm. gis nga jigéen boo nekkee góor boo nekkee moom mu lay defal lu mu mën mhm. di la defal lépp di la teral lu mu am jox na la ko nga lekk ba mu neex la mhm. nga toog yàlla def mu am mu nekk situation ay jafe-jafe léegi dafa nga ne dafa naqari deret c'est normal parce que nit ki boo demee ba am ba amatoo. Mhm. dina sa sa dund dina changé. Mhm. noo def dina am. dina la affecté dina am lu mu changé si yow. Mhm. mais yow mii di ko jigéen daan lekk ay mbiram yow yaay muñ. gore chaque jour gore. di ko woo di waxtaan ak moom di ko defal ba nga xam ne néew ma duna xari deret de mais seen ambiance su kër dina baax. mooy lu Ousmane wax rek na jigéen bu demee ba dina jaay jàpp mooy loolu la wax jigéen mm-hmm. marchandise la góor mooy jënd mm-hmm. jigéen bu demee ba ba yow di comporté wu ak yéen ak yow nenn ni mm-hmm. bul dóor bul saaga bul xas dégagel mu abal la Sénégal jëm kanam am na solo mais sàmm ba léegi ñu ngi ci violence faite aux fam mais tamit am na jigéen ñoo xamante ni ñoom seen bopp ñoo violent ni mu amee si góor ñi nga xamante ni maltraité seen i soxna noonu la amee aussi jigéen ñi koy seen i borom Sall Sall comment on appelle ce comédien là Sall nan Sall Sall association des ah, maris battus. ah des maris battus. Sall Foster waaw ah, mais am na am góor yoo xam ne ils sont violents xam nga violence aux femmes lañu wax. Mhm. am na góor yoo xamante ne mhm. violence bu métti la nii si biir. maanaam bi hmm? am ah, mais xam nga tamit xam ma yaa naan euh, góor yi góor yi jigéen yi jigéen yi. ah toj ko la lépp di leere ban façon violence lañ leen di def. mais violence nañ ne am nañ mais. ni violence bu gën a bon ci góor boo xam day rey góor. Hmm. boo xam ne sagré la la jural. mooy nga soxla sa sa soxna mu euh, mu la xoolal xoolal violence boobu. Hmm. est-ce que ko góor ki def moo tax kooku. comporté wu noonu non non may ma ñëw benn. may may ma ñëw règlement waaw uh-huh. règlement. imagine uh-huh. jigéen. Uh-huh. nga ne da ngay da la muur sëy si. sa jëkkër soxla la. Mm-hmm. boppam. Mm-hmm. nga ne lànk wala nga sol ñetti ji nag. daa fekk mu teg ci teg ci ñetti mm-hmm. ah, benn sër. koo xooloo xooloo ani animosité boobu. daa fekk ne mënul nekk rek. gisoo lu ma lan moo mënul nekk. ah li mu soxla koo xam ne alalam la. alalam ba ci. alalam. sànq nga baax ba heure bu def ko alal bi sa alal loo ci def. dama ne def ko. sa alal looy def yow sa alal li nga moom sa moomeel noo koy def. déet li nga moom mbenn soo ko soxlaa da ngay jël woo doo jël. dinañ ci ñëwaat maam Fatou. ah déet eh wuy sa moomeel. soo soxlaa nooy def. jël jël ak mel ni nga ko jëlee. alaay soo boo ko jëlee dagan na sa la. yow ngay ci waaw ñii duñ tegle de jigéen ñi dañuy def seen nuisette bu baax. dina rey dama ko yu neex yooyu yu neex yooyu xool sa xel di ci nekk ñu rasu. wax nañ dëgg xool mu ne la bàyyi ma. bila violente la loolu moo gën a metti. Eh? dañuy rasu dëgg xale yu jigéen oh. yi yéen laay <laughs> wax na ngeen bàyyi yi ngeen di def de. na ngeen bàyyi ngeen di def gis nga ku ko fi def di ko gis ku sa jëkkër say doom. ba ci ba ci ba ci violence bi jigéen ñi aussi di def seen i jëkkër yéen côté côté jigéen ñi am na jigéen ñi door seen voilà foofu laa bëgg aussi ñoo mm-hmm. i man violence bu gën a métti bu métti góor laa la wax am na benn fay violence benn affaire ñu yeneen benn am na benn violence ba xam bu la ko defee nun mm-hmm. lay taajale añ

mais violence boobu noonu kooku soo ko defee su nekkee ne genre góor yu mel ni ma am xadar am na muy demee rek sama loxo jóg. mais man ndeysaan j'ai mes diplômes en <laughs> loolu dinañ ci nga xam bu ñu meree seen borom kër yi rek mooy loolu. waaw ñooñu moom waxuma seen ñooñu moom dañu sëyul. Mhm. parce que gis nga góor loo ko mere mere mere mere gis nga góor. Mhm. ak lu mu mën a def ma nga mere ko. Mhm. góor nit la de.

ndax moo ko moom jox ko ko gis nga mu lay jox ko pare sax mu kurti kurti nga tëddaat nelaw jox ko ko ndax moo ko moom jox ko ko boo boo dee xëy di ko di ko merewaat sax yaa xam mais li mu moom jox ko ko mhm. góor jox ko ni moom te gis nga góor bu góor bu def toj toj mhm. mere ko du solution man du ma mere mbenn mhm. mere du solution di pour yow lan solution bi bu defee lu ñu def ba pare xam nga ko bàyyi ko ci biir def li nga war a def mbenn mais yow loolu loolu nga wax mais man mam Fatou ñëpp ñu aussi bu ñu bu ñu fàtte loolu quoi peut di yàlla baax na la nga am maîtrise boobu mais tamit am na ñoo xamante ne loolu mënuñu ko muñ quoi seen jëkkër dañ ay faay ba pare na ñoo xam ne mhm. dañu naturellement mhm. dañu brutal mhm. doo leen def léegi ñu réagir léegi moo tax ñuy muur jigéen liñ lay wax noonu nan laan mu ñëw comporté wul nii looloo war même bu fekkee yow noonu nga mel boo demee bay sëy lu bëri da nga ko war a wàññi da nga war a éduquer waat sa bopp. Mm-hmm. góor bu defee tëj tëj ñëwal defar xoola defar ko li nga ko war a defar lépp ba pare. Mm-hmm. bu jàllee nga toog waxtaan ak moom ndax lépp loo gis waxtaan la nit la. Mm-hmm. li gën a bon mooy góor def toj toj ba pare. mu ñëw nga meral ko fan lan nga defoon fan nga nekkoon. neexul aussi gis na boo ko harcelé. day génn ci biti dem doxi mais dina ñëwaat. déggoo ma de balaa muy ñëw fekk nga nelaw ba sànni sa tànk. day dem doxi si biti doxi soxlaam. balaa muy ñëw fekk nga nelaw góor bu defee toj-toj bu ñëwee defal ni nga war a def bu weesoo ngeen waxtaan day day sax góor dina def loo xam ne mu leer ko ne yow li mu def teg nga xam nga ko yow. nga bàyyi ko si biir tere def sa devoir nit kese dem ba day am kersa. am na solo mais monsieur Samb ba léegi bu ñëwee ci affaire violence bi maîtrise boobu ngeen di wax ne moom la ko jigéen ci war a am. Mhm. ba comportement bu jëkkër ji war a demee rek mu ànd ak dal est-ce du loolu tamit parents yi ñoo futi parce que cultivé wuñ ko ci xale bi ba mu mën a demee ak loolu. looy wax ci loolu. degré c'est-à-dire que mbenn mhm. la femme est la première conseillère de l'homme mhm. moo koy une solution mais koo ce xam-xam nan nga koy conseiller mais digen soo xam la mooy terme digen dëgg-dëgg mhm. jigéen mooy apaisement quelqu'un qui apaise mais ça, dafa ànd ak maturité quand même. mais mais maturité tu dois apaiser rek fekk na da nga war a mature. ba war a mature parce que sëy lan wax de. Mhm. violence su ñu demee ba ne violence rek ci biir sëy yi rek sëy la. Mhm. te yaakaar naa ne su ñuy dem bay sëy da ngay mature. Mhm. nga baax ma dëgg la femme bi jigéen ñi ñun daal suñuy waajur def la ñu war a def ci ñun. mais ñun ñoo ko war a jëfe macha allah Sénégal éducation bi jamono ji dëgg la sax am nay rëq-rëq yu bëree bëri bëri. mais parents ñoo góorgóorlu lu mën. mais xale jigéen nañ ko jëfe leçon de mona bu lay jox bi ngay bu lay muur mhm. so demee jëfël lool mhm. waxal lool xolal sa yaay sa yaay est ce que mën nga mës nga déggante ak sa mok sa papa coow am musul am mais day am parfois da ngay dem ci kër yo xamanteni comme Iran Irak de papa ak yaay ji Irak ba naaw moy ñak xam ki rek mhm. gis nga doom adam yalla su la may njabot war nga am ben comportement digne de son am loy ruus parce que tamit ki dafa am ku ñu ñuul say sa jëkër yak say doom jëna tak Mm-hmm. ñoom ñoo ngi seen seen exactement mm-hmm. mais gis animosité entre yow ak papam mu koy gis doom ci gis am par exemple la day thème solution mais ne je croyais que c'était quelque chose de normal mm-hmm. et de naturel loolu laa ba actuellement man damay donc loolu lu jar a moytu la. lu jar a moytu la éducation de base dafa dafa baax quoi. donc kon d' accord ngeen daal ni ñu war a waajalee ku jigéen ki ba mu war a xam waree fu sëyam. ba ñu ko mhm. jëkkëram mën a def mu mun ko maîtriser. ku góor ki mhm. aussi loolu lañ ko war a jàngalee quoi. waaw ku góor ki tamit dañ ko war a dañ ko war a tàggat ci loolu. Mhm. parce que gis na sëy nag d' habitude dañ naan jigéen dañ ciy mu naan kaan muñal et tout muñalante la sama maam nee na sëy. du muñ de muñ de muñalante la. muñalante la góor day muñ jigéen day muñ tanante faw mu am ngir seen kër mën a am jàmm amna solo parce que dañ koy wax souvent hein, Sénégal habitude buñ am duñ la wax dara de côté mariage defeel ni et tout ça dañuy bayyi ba nga dugg ci ñu dog lay wo ne la mhm. defeel ni donc il y' a problème lan ngay wax ci genre goor yoy nga xam ne len leen. waajaluñ leen. Mhm. mais tamit xam ci cest à am ñu Sénégal noo banaliser lu bari mhm. parce que une tradition la. wax dëgg fa neexee loolu moom fautif la quoi. mais ñun ñi nga xam ñun ñooy génération bees bi. nañ fexe ba valeur yi ñu jëm def suñu doom yi waajal leen. waajal leen parce que tamit am na parents yi waajal. Mm-hmm. parce que gis nga waajal bu gis nga tamit. Mm-hmm. ñun noonu lay tradition boo xam duñ la ne defal li defal lay mais yow yaay xool sa papa muy def nga di ko copier. jamono moo yàqu gars dañ dépassé di xool di copier xam nga mais ñun suñu éducation c'est-à-dire que mhm. éducation la yàlla moo ñu defee noonu mhm. da ngay xool sa papa nu muy doxal ci biir kër gi nga di ko mhm. copier sa yaay yow ku jigéen ki sa yaay nu muy doxal nga di ko copier loolu bu njëkk la woon Samb mais actuellement tu sais actuellement man sama exemple sama nit ki par exemple foog nga jël sa bopp exemple waaw man de sa premier exemple bu may jël mooy sama kilifa yow 1 waaw ma même su ma nekkee 1 mais damay wax pour nit ñi dégg ma ah. pour nit ñi dégg ma ah. mën naa nekk 1 mais sama morom yi bari nan ñoo xam ne seen papier la ñuy copier parce que tamit xam naa la de génération dëgg la ah bu fekkee yow ji comme ni nga ko waxee da ngeen di copier seen papa yi kon lan moo waral violence bi nu mu amee nii nii si couple yi léegi léegi la gën a bari de par rapport ak bu njëkk ana copier boobu fan ngeen ko teg c'est-à-dire que tamit fu ngeen ko collé mais da nga xam ne tamit ñu ngi ci vingt-et-unième siècle vingt et siècle waaw maanaam vingt et siècle lu mu lu mu indaal dafa bari lu mu am dafa bari ci xeetu yàq-yàq ci xeetu ñaawteef. mais roy leneen la. ne ba roy leneen la. Mhm. benn te ma te ma may mat. allez <laughs> bu ma di guppee. allez dama leen xaw ma li nga wax dëgg la. Uh-huh. mais tamit gis nga génération dafa bu ñëw da am ni ko war a tàggate. Mhm. am na ñoo xamante ne am na loo xam su xasee dugg seen bopp allah kulli alin. Mhm. du dañ. du mos sa fii yow mais dama lay xamal lu leer de. Sénégal fii violence bi néew na. gis na dama koy wax mës naa ko wax si benn émission dama koy waxaat nga góoru Sénégal yii. Mhm. ku leen siyal te yàlla tax. Mhm. wallaay di nga am wàlliw mhm. lu leer laa la wax de. <laughs> défendre ma sama mbokku góor yi. mais lu wër laa la ah. que yërmande bu ci góoru sénégalais. jom bu ci moom fulla bu ci am. Ah. yéen jigéen ñi kañ. yéen defaraat seen toogaay xam ne yéen kat yéen a war a doon njaboot ëllëg. mais gars yi amuñu benn problème. seen nekkin ngeen war a xoolaat. su ma la nekkin nag tooñu joxuma euh, baaraamu tuume mais comme que yaa fi nekk. Hmm. yow kooba kawasa kawasa yow baaraamu ci terme bi. <laughs> bari na ñu ngi ah, responsable de li ma ci jaaxal. non couple léegi. non bu xoolee yëngoowee melu ko woon bu njëkk de. melu ko mooy lan lu ma la wax mm-hmm. Mm-hmm. bu yàgg ba. Mm-hmm. société lañ doon dund. papa yaay doom ñoom ñëpp. mais est-ce que ñun duñ jéem a jël loolu dugg ko ci biir société bi man da xaw ma kan. mais bu ma yàlla mayee soxna may may bant. ñooñu soo ñooy sama royukaay. di conseil samay doom di toog di waxtaan ak ñoom mm-hmm. gis nga communication mooy lépp mm-hmm. nañuy nangu di communiquer entre nous mm-hmm. di tamit di wax dëgg waxante dëgg xam nga loolu moo ko waral mooy ñàkk wax dëgg ba ngeen di labatante gis nga dafa am solo ñoo koy fooyee nii Sénégal mais dafa am solo labat mooy lépp maanaam su ma su ma la déggee daal mooy déception bi moo moo bari si couple yi moo waral raag bu bari déception bi mënu mën a déception moo waral raag bu bari parce que raag nature la rek Mhm. bind na ci nit ki. bind na ci nit ki mhm. nature la de am ñoo xamante ne mhm. dañuy raag ba keroog ñuy dee mais lu ñu mën a mooy ñaax la xam na raag amul njëriñ communication moo am njëriñ. communication moom am na solo moom Fatou Samb dafa wax sànq lu am solo mooy moom nee na ci ay kilifaam lay yor maanaam lay roy dimanche maanaam du xaar ñu ne ko defal pour mu def man gis naa ne. fautif am na quoi mais damay laajte benn instant parce que tamit du ñëpp ñoo am may bu toll ni lu seen parents yi def ci lu baax ñu copier ko est-ce que parents yi waruñu dëggantaan gën a gën a gën a gën a veiller ci éducation xale bi te la xamal lan mooy mariage ñu insister ci bañ a wax ne dañuy xaar ba mu takk rek. Mhm. ñu ñu ne ko defal lii mala la. Euh, waaw loolu lu am solo la parce que tamit mooy li mooy wax naa ko fi keroog rek muy gis nga ku si xaar ba dugg ci sëy di soo a jàng nooy sëyee dootuloo ko defati lépp dañ la war a tàggat say parents muy jigéen gi yaayam day war di waxtaan ak moom di ko wax li ci sëy ku góor ki dafa war di waxtaan ak papam comme Sambou li mu wax nga am papa bu baax nga gis sa kër yaa ngi fa harmonie am fa sa papa dóoru sa yaay xasu ko saagaw ka mhm. donc sa papa dafa war dafa la war a jël éduquer la jàngale boobu moo gën a gaaw voilà voilà mais terewul dala war di la wax ne la ah jigéen kat lii lañ koy téewee jigéen da ngay comporté wu ne ak moom mais ñu la bàyyee noonu mën nga génn de di bon nit lu ko lu ko changé dafa yomb. Mm-hmm. pour man daal lépp ci xel la maay. Mm-hmm. gis nga xale bu tuuti bi ngay gis sax. mu am 3 mm-hmm. ans 4 ans. boo ko waxee ay wax da ciy bàyyi xel. day gis keroog rek temps yi passé sama benn doomu mag. xale la de mu ngi am ay 3 ans. dañ ko yóbbu di ko wat ci coiffeur bi. di ko wat.

kii ñu war a sëyal mhm. sànq wax na ko sànq mhm. tànn bi ci la mhm. nit da ngay xam fan ngay dugg mais bu boo amee far mu lay dóor di la mbéj ko bu la takkee du la rey deen xale yu jigéen loolu lañ gën a kii da ngay da ngay balaa ñëwee bëgg nga dóor de mbëgg agressif ñu la waa gaa nii fayal góor gi tamit xool kan lay takk ndax jigéen moom mooy source bi jigéen mooy jur jigéen mooy éduqué mhm. jigéen mooy mooy base mooy sëy mooy yor kër gi loolu dem nañ ci bàyyi xel am na solo li nga tëjee am na solo monsieur Samb solution ak sa mot solution mooy ka lan mhm. nan bàyyi yenn yi mooy ka lan lu jar wax ñu wax ko mooy ka lan ñu ut gée ñu ut école boo xam ne mhm. day former nit ñi ci sëy parce que tamit 20e siècle la nek war ko mën créer mon nami Tidiane xamna inshallah nan ma projet bob ma ngum moom ko créer ke ci idée la <laughs> waaw yalla ci yàlla jàppale góor ak jigéen nu man may ñëk nek candidat waaw formé jigen ak gonum nu parce que c'est tellement important mhm. lu wax deug la ça à dire que xale ñoo dem ba def culture bob mhm. tay ji ni so amé Covid soo ko dóor rek mëna dafa yambal mhm. fo nga boxe ko door wax wa door ñu soog la technique nit so dafa def ba nek ci ñom parents yi deug la responsable amna ci ñom Mhm. parce que tamit nañ gën a baral éducation bi. parce mhm. loo ko def du doy. Ah. mais nan nan nan nan ci bàyyi xel bu baax. solution bi mooy ko lan benn. royukaay bari. am na solo nañuy jël suñu valeur maam di ko mhm. impliqué suñu biir. affaire bi solution bi loolu la. am na solo fi ngeen daanelee neex na ma torop di wax ne sëy moom suturaalante kese la te bañ la koy jox guddi lañ la ko jox muur ko ba mu jekk ñu andi la ko kooku boo ko suturaalu dootoo suturaal kenn xale yi jigéen yi aussi ñu xam ne seen borom kër yi du ñu seen i morom tamit nañ ko wax te dee jëkkër du tuuti kilifa la comme ni ngeen ko déggee di am mbégte ak contentement saa su ne di ànd ak yéen ci seen émission Nekkinu Jigéen di leen wax ne lii lañ leen andiloon ci émission bi di leen jox rendez-vous ci beneen numéro Neck and I neck and that neck. Be my neck, neck and neck, can be my neck. Neck and a jig. Eh? Jig now a jig.